thank you def lu dul jox ko mu nuyoo ak suñu mbokk internet bu Reubeuss TV Lamine nuyu nañ waaw fay naa leen ci fay yi gën a màgg yi aussi di leen di nuyu yéen i tamit di nuyu Reubeuss TV mi nga xam ne aussi ñoo ma ñëw tey seet si nii di rafetlu tamit euh, seen teewaay fii. aussi di nuyu tamit sama mbokk yëpp aussi di nuyu si samay xarit di nuyu sama mbokk monde sport bi bàyyiwuma kenn. waaw mun na mu doon sama premier numéro ah mu doon sama premier numéro Diary Sport kon nag lamin dañu bëggoon juste xam kuy Lamine parce que. waaw Lamine mu ngi nii benn nit bu simple la rek dëgg la juddoo Fann màggee Fann yaroo Médina euh, depuis 2006 ba léegi maa ngi Médina mais. sama jeunesse moom maa ngi ko passé fan wook quoi falaa juddoo falaa màggee mais naa laa yaroo ah doon nag benn Lamine daal mi ngi nii daal benn nit bu simple la nii rek comme ni ngeen koy déggee rek moo nekkee nii quoi. waaw bon Lamine ñu gis nag ngay ngay yëngu ci wàllu athlétisme ñu gis ñu ñu buggoon xam lu la ci athlétisme. waaw loolu boo ma ko laajee dinaa ci sawar pour tontu ko parce athlétisme mun naa ne depuis ma nekk xale laa ko commencé doon def parce que dañ ko daan fooyee suñu koñ parce que dañ daan def di wiiri koñ quoi loolu moom xam naa sama gars yi bari buñ ko déggee sax dinañ ne est-ce que sax mënati na lu mu mënoon bu muy nekk xale lu mu doon def parce que boobu chaque fois bu ñu daan rawante foofu noonu suñu koñ maa daan raw ñëpp léegi mu nekkoon nag li nga xam ne passion la ci man parce que un jour laa toog télé ma gis euh, Ami Mbacké Thiam ma ne pour pourquoi pas man man tamit mënu ma nekk champion parce que kii gënuma gaaw te gëm naa ne ñii maa leen gën a gaaw mun naa ne loolu moo ma gënoon a poussé ba moo ñëw def athlétisme quoi. mun nañu avant tout passion la quoi si yow. passion la moom franchement loolu moom am na moom parce que liñ naan xale moom loo rek boo màggee rek di nga ko def te loolu moom mun naa ne loolu moom passion la ci man quoi. Mhm. tamit euh, mun nañ ne ñu gis Lamina ah, comme toujours ñu gis la ci ay bërëb yu mel ni stade ci ay bërëb yu mel ni plage toujours nga ànd ak benn groupe de jeunes xam nga ay groupe sportif je pense am na tamit ay mag mais toujours ñu gis la ay ak ay groupe de jeunes ngay ngay nekk ak ñoom di entraîner ñu bëggoon xam loolu tamit lan la. waa loolu mun naa ne daf ma daf ma dogaale rek ci yoon bi parce ndax ba léegi man. maa ngi compétir ba léegi parce que ba léegi je suis un athlète mais euh, nu ma ko mën waxee xam nga nit moom di nga nekk ci dara leneen ñëw fekk la ci. parce que début bi sax ba ma gisee ni nit ñi ñu ngi commencé di ñëw ci man parce que benn jour dama ñëw di entraîner Ibamar ma ñëw gis fa sama benn booy muy entraîner. léegi mu ko gisee mën na ko yow nee nga da nga bëgg a nekk professionnel mu ne waaw mën na ko non professionnel moom boo ko bëggee nekk moom munoo toll ni nga toll nii moom loolu moom mun la si yóbbu léegi bàyyi léegi bu subaa boo ñëwee ma la defe naa loolu moo indi lépp mu nekk sama benn rak nekk sama booy xam naa sax mun naa la wax turam parce que Mohamed John la tudd moom mooy premier jour bi nga xam ne moom laa njëkk a entraîné mais dama ko doon tooñ ci loolu nag ñi ñi gis résultat ci moom ci la commencé nag ñeneen ñi nag commencé di ñëw parce que ñi fi jaar bari na parce que boo xoolee formé naa ci plus de ay sept personnes ba huit personnes yoo xam ne tey jii ñu ngi au niveau international waaw parce que du ñàkk ne comme chaîne bi Reubeuss TV la du ñàkk ne am na ñu ci xam parce que xam naa ne su ma leen cité comme ku mel ni Amath Diédhiou ak Pa Chérif ay ñoom Zam ay ñoom Baara ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne tey jii ñu ngi niveau international mu bari ci ñi nga xam ne jaar nañ ci. ba jamono jii sax may waxee yéen nii sax am naa centre boo xam ne moom laa yore di ci tàggat ay xale mais terewul ba léegi maa ngi defaale athlétisme waaw nekkul nag li nga xam ne nee naa dama ci jàpp à 100 pour cent mais comme li naan rek góor moomul benn métier waa dama ci jàppagum nii yeggaleegum fee bu ma ci paree incha allah yaa ciy gën a mën a xóot quoi. kon yaa ngi exercer ba léegi ba léegi yaa ngi yaa ngi ci niveau athlète bi ba. ba léegi yaa ngi exercer. waaw ba léegi maa ngi compétir ba léegi maa ngi ci athlétisme xëy na peut tamit dama fàtte sax présenté wu euh, ci côté athlétisme sama discipline parce que man mun naa ne polyvalent la ci côté sprint bi parce que damay def 100 mètres 200 ak 400 en plus mun naa ne triple champion du Sénégal 4 fois 400 4 euh, fois 100 tamit aussi jël naa ko deux fois. mais quatre fois quatre cent moom jël naa ko triplé naa ko trois fois en plus tamit record man quatre fois quatre di Sénégal fii waaw record man bi ñun ñoo yore record bi mais ma nekk ci benn club bu ñuy wax jaraaf fa nekk kon ba léegi maa ngi ci quoi mun naa ne nag peut tamit li may dese bariwul mais ba léegi maa ngi ci quoi. waaw comme ni ngeen ko gisee ah, mu muy Lamine gis ngeen ko mu ne ba léegi mu ngi ci athlète bi. di ci ba léegi il n'a pas encore raccroché les crampons donc ñu bëggoon xam tamit ñu gis la ak ay matériel comme bu ñu gisee Lamine plage wala géej dañuy gis mu teg ay matériel ay matériel yi nga xamante si c'est coûteux ñu bëggoon xam ndax Lamine dafa am ku nekk ci ginnaawam wala dafa am ku koy jàppale wala moom il prend ses propres di demal boppam pour jàppale jeunes yi pour jàppale jeunes sportifs yi nekk fii Dakar Plateau ak Médina. waaw loolu moom boo ma ko laajee dinaa ci sawar trop trop trop sax pour tontu ko parce que xam naa yàgg na tuuti nag may yëngu ci loolu mais comme li ma la waxoon fële rek ne comme sam benn booy laa gisoon mu doon entraîné ma commencé di ko entraîné defe naa nag comme xam nga fii ñëpp bëgg lu baax ñu am mu amoon ci résultat yu baax comme li ma la jotoon a expliqué ma génnee ci ay nit yoo xam ne tamit aussi ñu jaar fi aussi suñu borom tamit jàppale ñu ci ba ñoom tamit lépp lu ñu ci bëggoon ñu am ko. boo xoolee ren laay soog a ñëw ma jënd samay matériel comme ni nga ko waxee man maa ko jënd ci sama su bopp samay propre moyen mais ci biir wax boo ko déggee nee naa la dama jug pour jàppale jeunes yi mais du caaginu ne dama nit a nekk sama ginnaaw parce que na mënoon naa ko jàppalee neneen mais nii la ko sama borom dogalee mag booy nekk fii Médina parce que su ma nee Médina sax dafay mel ni dama koy bëgg a yemale parce que boo xoolee boo ñëwee ci groupe bi di nga gis ku jóge Géejawaay di nga gis ku jóge Pikine Parcelles Grand Yoff kon mun naa ne bàyyiwuma fii quoi parce que lu ko dalee Rebeuss Centenaire Gueule Tapée Fann Kusum Kusum bi nga xam ne nag fii laa defee sama lépp moom itamit ñoom itamit dëgg fi yàlla tamit aw ma seen fay parce que ñoom itamit ñu ma dooleel lañu ci affaire bi ndax mënoon naa ko début bi mënoon naa ko commencé di def mais da ngay gis ne ñoom ci jëm boobu ñoo may gën a encouragé di woo booy di leen di xelal naa leen boo leen bëggee dara dem leen ngeen ci Lamine pour mu jàppale leen parce que gis nañ ci seen rakk yi nga xam ne jaar nañ ci ba ku ci nekk tamit lépp li nga bëggoon tamit am nga ko ci loolu tamit damaa leen ciy remercier képp koo xam ne tamit yaa ngi biir kusum aussi affaire yi nag comme ni nga ko waxee kenn jàppalewu ma ci man maa koy def ak sama propre moyen mais tamit aussi am tamit yëg-yëg bi nga xam ne aussi maa ngi ko ciy yëg moo tax ma ko ciy def xaaruma ci kenn nag pour nga jàppale ma ci mais tamit bañu ma ci tamit képp ku ci tamit ne ma bëgg na ma ci jàppale tamit parce que booy def lu baax moom da koy jéem a yaatal rek waroo ko mën a yemale sa bopp sama loolu laa gis mais ku ci jàpp tamit baax na mais li ma ci mën moom incha allahu rabbi bu ci yàlla am de dinaa ko ci def. te ko buggoon ñëw ku jóge fenn ñëw gis li ngay liggéey gis li ngay def mu intéressé ko mu bëggoon dugg mu bëggoon ñëw entraîné ak yow dafa am lu muy fay wala day juste ñëw rek nga accueillir ko entraîné ko. waaw pour le moment nii pour le moment moom mun naa ne defaguñ ko mais comme euh, li Olof Ndiaye di wax rek lu ñëpp bëgg xamal na loolu njariñ mu ci te. boo gisee euh, dama ne xam naa peut-être année prochaine dina xaw a changer quoi parce que dama ne woon par nombre laay jël mais dañ na ma boo defee loolu di nga yàq lu bari comme danga def lu baax ba ñëpp bëgg ko lenn ngay mën a def soit da leen di wax lii da nga koy def inscription képp ku bëgg a bokk pour intégrer ci groupe bi mu fay mais ku ma xam ku nekk bokk am na ñoo xam ne tey buñ ñu seetaanee émission bi xam nañ ma. dinañ ne loolu bu ko naree def luy metti la ci moom parce que xam nañ ko dëgg la tàmmuma ko nag tàmmuma laaj nit mais comme euh, li ñeen ñi li wax rek parce que lu baax moom bu ko ñëpp bëggee rek njariñ mi ngi ci te boo ko bëggee bàyyi noonu rek bu yàggee après day yàqu moo tax ma jàpp ne peut-être année prochaine dina am mais nag du doon li nga xam ne tamit luy sonal doomu aadama lay parce que sama intention mooy pour jàppale leen rek waaw li ma leen di laaj nag du dara ñu gën a mën a jëmal affaire bi loolu dong la rek. waa lu mu wax nii man loolu mën naa ko seede muy muy muy sama grand di sama di ma conseiller si lu bëri ah ci wàllu sport kon tey jii nii comme ni ngeen ko gisee moom li mu def ni yaakaar naa bénévolat la mën naa ko wooyee day jël matériel am jël xaalisam jël temps am di si di si jàppale ñi nga xamante ne ay sportif la parce que mënoon na dem defi leneen ñàkkul ay salle musculation wala ñàkkul ay terrain ay club yoo xamante ñu ngi koy woo pour liggéey ak mu bàyyi loolu yëpp. consacré temps bi nga xamante ne pour di ko mën a jàppale ak jeunes yi kon tey jii tam loolu il faut nit ki tam li nga koy li nga olof di waxee ndimbal borom na ca fekk loxoy borom kon gars tam da koy jàppale jeunes yi man loolu fekkee naa ko benn ñaar moom mënul laaj mënul laaj kon ñun ñi nga xamante ne matériel yu muy jënd xaalis lay jar ñu koy jàppale ñu ku nekk loo am nga jàppale ko affaire gën a mun a parce que tamit seen intérêt la moom li muy def def na ko ba pare d'ici bientôt peut-être gën a concentré loolu kon gars yi dañ koy jàppale ñu bëggoon xam tam lenn muy est-ce que tey jii comme ni ma ko waxee tey jii nii danga bàyyi sa temps bàyyi sa lépp bu keneen ñëwoon bu benn club ñëwoon wala benn centre formation wala benn salle de musculation soxla sa appel il fait appel à toi wax Lamine dama bëggoon ñu liggéey est-ce que tu es prêt à leur tes services. waaw loolu moom je pense que propos yooyu moom actuellement nii nii nii nii sax bari na trop waaw bari na trop trop trop. parce que moment bi ma lay wax nii bari na ay club yu bari yu ñëw bëgg a liggéey ak man mais comme li ma la wax rek man maa pareegul woon parce que dama leen wax carrément pareegu ma parce que ba léegi man maa ngi ci terrain bi te kon ba léegi athlète la xëy na nag su ma ko temps bi maye dinaa xool club bi nga xam ne tey jii ban moo ma ci arrangé si propos ma jëm a liggéey ak moom mais actuellement ba ni ma lay wax nii club yi moom bari na moom franchement waaw club yi bari na. ku ci nekk yaa ngi may woo mais chaque fois ba mu waxee dama naan la rek pareegu ma wax te dëgg la pareegu ma parce que war naa mën a jàngiwaat leneen parce que déjà am na yoo xam ne war naa ko jàngi mais peut-être tamit temps bi daf ma ko mayul mais comme euh, nee na li ma desee ci athlétisme bi bariwul te su ma ci paree incha allah ma jéem a demaat jàngiwaat xam-xam bi parce que tamit aussi doo mën a jël ay doomu aadama nga yore leen noonu te li ci bari xamoo ko. waaw loolu moom moo tax ni moment bi daal pour le moment daal loolu laa leen waxagum nii daal mënaguma jël nii club mais actuellement aussi am naa benn centre bu ma yore boo xam ne petit catégorie la waaw boo xam ne moom maa ngi liggéey ñoom mais comme ay xale lañu bokkut ak nga nar a jël ñi nga xam ne ay mag lañu aussi kooku day laajaat nga demaat jàngiwaat pour nga gën a mën a xam certes que ne maa ngi jàng ci xale yi mais des na quoi waaw man mii personnellement xam naa ne des na. parce que li ci mag ak li ci xale bokkul kon loolu moom xam naa ne bés bu ma ci jubloo rek incha allah jàngi bi laay njëkk a dem defi soo ko mën a ñëwaat. waaye comme ni nga ko déggee jàngiwaat la wax tres important parce que tey ji mënoon na ne xam naa lépp def naa lépp jaar naa fi jaar naa fi ma dafa ne day jàngiwaat comme ni mu ko waxee yor na ay xale yor na ay ndaw ay tuutànk mu teg avenir am si yu fi niveau bi gën a kawe kon tey ji mu ne day dem jàngiwaat kon loolu. il faut nit yi bàyyi ci xel am na ay club yi kon mi ngi noonu Lamine la sportif la xam na sport lu muy def xam na ko triché wul lu muy def làmbaatuwul ku ñëw xool li muy liggéey xool li muy def nga xam ne kii lu muy def nii làmbaatu ko xam na ko loolu ay profil nañu la kon donc juste on va terminer avec euh, lan mooy projet Lamine ak ambition am tamit ndax Lamine am na ambition ndax am na projet d'abord ak ambition fu mu bëgg a yegg ci lu muy def. waaw mais képp koo gis ku ne am na projet. képp koo gis ku ne tamit am na ambition peut-être sama ambition avant xëj na comme maa ngi ci ci terrain bi ba léegi mun naa ne waruma mën a bàyyi mais sama ambition moom dëgg fa yàlla c'était que ma nekkoon champion du monde en athlétisme mais comme xëy na lii la yàlla dogaloogum te luñ naan xëcc bu dagg xëcc bu daggul bu yàggee dikk comme ay jullit lañu te waruñu mën a gaaw a xàddee noonu waaw loolu moom mun naa loolu moo njëkkoon nekk sama première ambition bi nga xam ne moom nekkoon na ci. projet bi nag mun naa ne dab na ma nag ci cadre comme li doon waxtaan léegi léegi muy côté sport bi muy côté physique bi may defal euh, jeunes yi waaw mun naa ne pour le moment loolu daal moo fi nekkagum comme projet pour le moment nii ko waaw. mais comme ni ngeen ko déggee ah comme moom moom moom c'est un gars bi nga xamante ne moom du bàyyi moom lu mu lu mu jàpp ne lii nit war na ko mën a def la da ciy dem ba jusqu'au bout kon ban ban lettre de motivation ngay lâché aux jeunes aux sportifs tey jii comme gis nañ Sénégal y a beaucoup de jeunes yoo xam ne dañoo bëgg sport seen xol tey jii lan nga leen mën a wax loo xam ne mun na leen yokk. waaw waaw loolu moom aussi c'est très important aussi parce que xam nga lu ñu naan lu milliard personnes soxla. loolu dafa laaj patient aussi laaj ngëm-ngëm laaj tamit nga nangu doon nit ku dal aussi doon nit ku am ambition parce que foofu li ma ci mën a wax parce que chaque fois dama ciy xaw a am problème ak yenn jeunes yi fii quoi ci ñi nga xam ne dama leen a yore parce que nee naa leen sport ñun Sénégal sax parfois dama naan ñun dañ naan dañuy def sport mais man damay gëm ne defuñu sport parce que da ngay gis léeg-léeg nga yore ay nit boog ci d'après li ma jot a yoreegul nii mais da ngay gis nu ñuy comporté woo da ngay xam ne ñii dañu bëgg rek sonal seen bopp rek mais li tax ñu naan sport mënuñu ko def quoi parce que lu mu ëmb dafa bari parce que déjà hygiène de vie bu muy laaj ci jamono juñ toll nii man mun naa ne jeunes yi bari mënuñu ko appliquer waaw parce ñu bari foog nañ ne hygiène de vie lekk la ak naan te man chaque fois dama koy wax nee naa leen hygiène de vie du lekk ak naan ak récupération parce que hygiène de vie mi ngi commencé si say entourage parce que bu fekkee sa entourage baax na rek mun naa ne lépp looy dugg rek mun nga cee sori parce que foofu mooy base bi parce que da ngay gis koo xam ne tey jii këram nu mu fa nekkee nekkul à l'aise aussi ci côté lekk gi ci côté naan gi. beneen bi boo ñëwee tamit aussi entourage bi da ngay gis ñu muy àndal aussi du ñu ay nawleem ci côté moom li mu bëgg parce que doona yow sportif nga nga bëgg a ànd ak benn melomaan xaw ma ni ko gars yi di waxee parce que mënut nekk parce que man chaque fois dama ciy am ak nit ñi problème parce que man dama naa sportif boo bëggee réussir si sa carrière il fallait nga commencé ko sa biir kër foofu nga war a njëkk a commencé soo commencé soo génnee foofu nga commencé ah, nga delluwaat ci say entourage muy si say copain yi ngay àndal soo paree ci say copain nga soog a dem sur le terrain waaw parce que loolu moom je pense ne ku ko xam te boo ko appliqué comme ni ma la wax nii loolu moom mun naa ne di nga ci am li nga bëgg waaw parce que sport nekkul loo xam ne da nga ne da def rek nii espoor rek ne man mun naa am naa talent mun naa fubal lii mais bari na ñi nga xam ne tey jii kenn ëpp leen woon talent. mais entourage bi parce que base bi may wax bu ñu ko amulee rek à chaque fois mooy indi lii quoi parce que léeg-léeg da ngay gis koo xam ne mën na lu muy def mais léeg-léeg parfois ci famem foofu lay yàqoo da ngay gis booy boo xam ne day mën a fubal mais da ngay gis ne côté côté famem demeewul noonu mayuñu ko liberté bu mu war a def ci sport bi aussi est-ce que kooku pour mu réussir ci sport bi du yomb waa day métti trop sax. bon grosso mun nañ comme li mu ko waxee patience la kon entourage ak hygiène de vie loolu mooy li mu expliqué fii nii yëpp loolu lay wax kon tey jii ne mais am na benn question ma moom laay mujjee te tey boobu ma <laughs> ma laaj la ba te naa képp ko xam Lamine loolu boobu moom dala koy bëgg a laaj ah Lamine ah grand. non moom moom man leer na ma moom métti naa ak foo dugg. li ma lay bëgg a laaj ñëpp la bëgg laaj mooy Lamine lu tax sa kat bi doo ko dindi man bi mën a xam ma ne benn yoon laa mos a gis sa karaw. te te li ñuy gisante na mais si fekk yaa ngi sol cap dama yaakaar soo neexoon soo doo sol cap tamit ah Lamine <laughs> sol cap bi fa la jógee <laughs> Lamine <laughs> ñu may la loolu. waaw non non ñu bàyyi noonu quoi. bàyyi noonu mu sedd quoi kon am na loo ma jot wax si affaire cap bi kon naa bàyyi noonu. waaw comme ni ngeen ko gis ah, on va juste lui donner le micro pour qu'il son mot de fin xam nga mu wax lan lay lan lay tàggatoo kon. waaw xanaa rek di am mbégte aussi si seet si bi ngeen ma seet si muy. mbégte daal. Reuz TV muy mbégte. <laughs> waaw. waaw moom xol bi noonu la mel bu bu kontaanee du mën a wax <laughs> mais xam naa ne fu mu toll nii kontaan na parce que lii nii li mu yàggoon bëgg la parce que moom comme ni nga ko comme ni nga ko gisee nit bu am xol la. il fait des il am na lu bëri xam mënuñu ko wax sax bu ñu fi naree wax ay kii yam fi lañuy fan def beneen émission bu nga xam ne dañ ñu wane preuve yi ñu wane li ñuy wax ni yëpp tey ne lii nii am na jeunes yaa ngi fi yu muy defaral ak leneen ak leneen n'est-ce pas. waaw. da nga koy may rëbës ci. waaw incha allah amul problème. <laughs> ok waa baax na comme li ngeen ko gisee ah nii lay demee saa su ne jaari sport di wax di wax lépp lu jëm si sport tey invité la dinañ def ay émissions yi nga xamante ne. day wax lépp lu jëm ci championnat local bi ak lépp lu jëm ci championnat bitim réew on va parler tout ce qui tourne autour du sport comme nag bu nee sport moom jeexal na wax du ma fi nekk di wax basket euh, handball nangam a nangam lépp lu jëm sport dinañ ko waxtaanee kon tey jii lii lañ leen andiloon muy lamin Lamine Lamine Badji di sama grand di sama xarit di sama frère bu ma ba xamante ne aw ko woon kon tey jii waa dox daje ci beneen émission fii ci Reubeuss